ndigal moo leen lëkkale waaye itam seen mëbét ci mbindum loxo ñu jagleel ko nag xasida yu Cheikh Ahmadou Bamba kuréel gi di wuyoo Fadaa Iddu Daare ni ak ñi ci aju lëkkale nañu jaaree ko nag ci seeni xalima ngir rek jëmal ndigal li soqeekoo ci xalif général de Mourides. nos nañ ko nosin woo xam ne ñiy bind ñi ngi fii di bind saal bee ca ginnaaw ñay topp itam ña nga fa da topp ndax kenn ku nekk xam ne ne mbind dañ koy saytu ndax day mel ne ku bind juum ku wax juum. moo tax bu buñ ci noppee rek fi saasa ñoo ñi nga xam ne ñoo koy topp dañ koy jël topp ko ñoom itam buñ noppee nu dajalewaat lépp nag dajawaat beneen daje boo xam ne nag dañu dajawaat saytuwaat lépp ba ba rafet njort ci ne xëy na lépp loo xam ne ay yàq la te suñ njuumteeg doomu aadama waral ko nekkoon na ci ñu fexe mu dañ allah allahu rabbi ñu doog koo jébbal sëriñ bi. bindikat yi nag bokk na ci xasida yi nga xam ne moom lañ tànn mu gën caa fës Matlabul Fawzayni muy xasida boo xam ne fas yéene nañ koo bindaat gën jaa néew ñaar fukki yoon ak juróom-ñett muy tànneef goo xam ne nag dëppoo na ak woote gi nga xam ne soqeekoo na ci kilifa gi jëm rekk ci dund sëriñ bi waaye itam taxawu ndono li nga xam ne moom la fi wàcc. kenn ku nekk xam na ne dëkk bi moom na sëriñ bi bëgg ku ne mel lépp ci xasida ak Matlabul Fawzayni la ko wax moo tax ren ñu tànnoon xasida ak Matlabul Fawzayni bëgg cee bind ab lim bu takkoo takkoo takku danañ bind xasida yu baree bari yeneen itam waaye jëmmi Matlabul Fawzayni moom gën gaa néew danañ ci bind ñaar fukk ak juróom-ñett ci bisu tey bii donte it dana ko ëpp waaye gën ngaa néew moom danañ fexe ba mat ñaar fukk ak juróom-ñett waaye danañ ko booleeg itam yeneen xasida yu baree bari lu mel ne wakaana xaqan sindi di toxfatu Matlabu Chifa yi ak mboolem xasida rek fii ba bañu àgg ca waxtu wa nga xam ne ci la sëriñ bi di yeewi mbooloo mi ci woote bu njëkk bi nag jëm ci bisu xasida yi lu yemook ñetti téeméeri nuur daare nii jotoon nañ koo bind mu jéego boo xamee nag mbokk taalibe yi ñoo ngi ciy dundal ak ndono loo xam ne soxal na yoonu murit waaye itam fës ci xam-xamu mbind ci lislaam yéen ñii di diñu seetaan jaaree ko ci youtube su ngeen bëggee jot suñu publication mën ngeen abonné Al Mouridiyyah TV te bu leen fàtte laal